maa ngi baalu ñëpp ak maa ngi baalu ñëpp ak dama julli ba pare di seedaloo yàlla sama boroom kàddu yi ma bëgg a yëkkati di ko wax ak Ndoye Bane Ndoye Bane ah xaas da ay nit feebar nañu ay at toog ci seeni chaise yàlla boole leen ak xaas xaas dugg ci rukkam ñaan ci yàlla yàlla yëkkati leen ñu dem doxi seeni soxla ànd ak wér lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas ay jigéen yu toog ay at sëy taxaw mënu ñu am doom yàlla boole leen a xaas xaas dugg ci rukkam ñaan ci yàlla yàlla may leen njaboot ba ñu jël seeni njaboot tuddee ko xaas lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas ndoy ay nit yu dem ba mag mënuñu sëy yàlla boole leen a xaas xaas dugg ci rukkam ñaan yàlla yàlla leen ay borom kër lu tax defoo ci reportage jàllale ko xalaas wala xalaas moom lu rafet du fa jàll walla danga yàqamti moo tax nga dem jubale ci Fambaye pour bëgg a daaneel xaas dafa am loo xamante ne nit ku ne da ciy sédd yàlla sunu borom ndax nag lii du mujj de ñëppay dee dee day am de la lazim te ku ci nekk nag war na xalaat sa bàmmeel ndax sa jëf ju rafet rek la fay fekk ak bi nga teg sa moroom nag sa morom rek la ko mën a baal mbay nag yow man mënuma la wax dara wax dëgg fa yàlla ndax nattu bi la yàlla teg te képp ku sa xor rafet rek mi ngi lay ñaanal nga jug foofu nga toog waaye xaas li mu ko jaral pour nga jug wallahi lazim nit yu bari jaral na leen ko pour nga toog foofu ngir gàcce xaas waaye yàlla mi ngi ànd ak ñi muñ yàlla mi ngi ànd ak gor ndax nag wéet gore wéetaliku gore maa ngi jéggalu ñëpp nag bu dee kàddu yi rafetul maa ngi maa ngi jéggalu ñëpp wax dëgg fa yàlla xëy na damay gor rek di xool tey ji bu doon jabar dina bu doon jëkkër dina ameel ak jabar ci julli ak wird ma xam ne kon xaas dina ma ameel àq ndax ba fajar du mën a sax waxtaan ak man ndax ji nekk ci liggéey doomu aadama yi rek kon nag sant yàlla baal leen ma ak bu baax a baax a baax maa ngi jéggalu dee day am de wallahi lazim te ku ci nekk nag war na xalaat sa bàmmeel ndax sa jëf ju rafet rek la fay fekk ak bi nga teg sa morom nag sa morom rek la ko mën a baal